validé ngir ñu mën a dem ci élection présidentielle yi nag fukk ak juróom benn yi lànk nañu nag ne duñu wuy ji boobee dialogue ci jamono joo xam ne rek moom président Macky Sall ma ngi leen di xaar altine ji nag foofee ca CICAD Sud Quotidien dellu suwaat ci lu jëm ci wàllu dialogue boobee nga xam ne rek moom jiitu réew mi convoqué na ko yéene kaay bi ne boo moytuwulee ci boycotté ko nag ca la ñu jëm ndax fukki candidat ak juróom benn yi war a dem ci élection présidentielle yi nag ña ngay xam ne ni daal duñu teew ci boobee waxtaan aar suñuy élection nag fi mu toll nii ña ngay xam ne ni daal daañu wàcc ci mbedd mi amal ay manifestation Mimi Touré ak waa Forum Civil naka noonu lenn ci waa société civile bi nag ñoom lànk nañu nag ni duñu wuyu ji woote boobee njiitu réew mi di woote ngir ñu daal di a amal ne candidat yi kay jamono ji nag nee ñu duñu jaar ci waxtaan woowee nga xam ne rek ñu ko fas yéene amal altine ji ak talaata ji ca CICAD waa FC 25 ña ngay sàkku nag ñu daal jàpp dat ci nu mu gën a ngir amal élection présidentielle yi Boubacar Camara nag dib candidat ci élection présidentielle yi ma ngay xam le ci biir yëglekaay bi nag date boo xam ne rek daañu ko jàpp laataa ñaari fan ci weeru avril moom la ñuy sàkku jamono ji nag ngir mën a sóobu ci processus électoral bi professeur Daouda Ndiaye ne mënuñoo boole ay personnalité yoo xam ne rek bokk ñu benn objectif lu mu ci doon daal enquête yëglekaay moom ma ngay xam ne ne présidentielle yi nag woote bi nga xam ne moom la ci njiitu mi di woote nag guerre tàmbali na xaat yéenekaay bi ne dialogue boobee nag candidat yu bëree mi nag na jéem a yaakaar Thierno Alassane Sall ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne dina saisir waa conseil constitutionnel Walf Quotidien dellu siwaat ci opposition beeg société civile bi nga xam ne rek xottate nañ tareet nag carton d'invitation bi nga xam ne rek moom la leen njiitu mi invité ci waxtaan woowee mu bëgg amal niki altine ji Babacar Gueye bokk ci aar sunuy élection ne dialogue bile ay caaxaan képp la yéenekaay bi ne Macky Sall nag fi toll nii moom Déthié Fall ne xel mënta nangu nag ñuy dajaloo di waxtaan ngir mën a may président de la république nag ngir muy des nag di doon kuy jiite réewu Sénégal maam Boye Diao nag ne dialogue bi ñu mën a accepté daal mooy dialogue boo xam ne rek ci diggante candidat yi lay doon ak kilifa yi nga xam ne rek ñoom ñoo gàlloo lu jëm ci organisation élection yi source a dellu siwaat nag ci ñàkk teewuk lenn ci classe politique bi ñeel boobee dialogue waral yëglekaay bi nag samp laaj na ban njëriñ nag la dialogue boobee nar am bu fekkente ne nag ñoom ñoo ñee ñëpp xamle nañu ne nag duñ ca teew l'observateur dippee ko dialogue fois ne naam nag déggoo du am waaye kii di président Macky Sall nag ma ngay jéem a def kéem kàttanam nag ngir mën a am ndam nag ci bataay boobee mu daal di sóobu nag El Hadj Kassé di ministre conseiller nag di xam ne ne ak jafe-jafe yoo xam ne rek dox na suñu diggante faaw ñu daal di am courage rek ngir dem ci dialogue bi addu jëmale ci coowal Ngagne Demba Touré ak leneen loo xam ne rek jur na ko ci diggante magistrat yi ak ñii di greffier yi nag Walf Quotidien ne fi mu toll ni kay magistrat yi nag ña ngay dal bu baax ci kaw ñii nga xam ne rek ñoo di greffier yi laas yëglekaay ne coow lu juddu woon kay ci diggante juge Touré nag waa UMS ñoom ña ngay recadré waat ñii di greffier yi addu jëmale ci solo yëglekaay ma ngay dellu siwaat ci ndajem conseil des ministres bi ñu doon amal nag doon ci waxtaanee nag lu jëm ci wàllu ajik màkk atum 2024 yéenekaay bi dellu siwaat ci juróom-ñaari mesures yi nga xam ne rek jël nañ ko jamono ji nag lu jëm ci wàllu inscription yi nag ñeel pèlerin yi ak wàccaay wi nga xam ne rek moo jëm ci ajug màkk gi nag daañu ko wéyal ba fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu jëm nag lu jëm ci njëg li nga xam ne rek moom la ñu fixé atum ren ji nag toll na ci 4 millions 300 mille francs yéenekaay bi di